ci ndorteelu xibaar yi wax naa leen ko euh, soxna ay Aïssatou Mbodj euh, ñu gën ko xam ci Aïda Mbodj député assemblée nationale jiite kon groupe parlementaire bu libéro yi di présidente alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey euh, soxna si ñu ngi lay nuyu. Auzu billaahi mina sheytaani rajim maa ngi nuyu seen téléspectateurs yëpp ngoone maa ngi lay nuyu di nuyu seen waa groupe di nuyu kilifa dëkk kër gi muy président Youssou Ndour ak ñi fi nekk ñëpp. ñu lay dalal jàmm kon euh, tàmbale ko ci actualité bi ak euh, dogal bi euh, Bamba Fall mu ñu may bàyyi négandiku waaye terewul ba tey ji kon contre judiciaire léegi la ñu daal di teg ci kawam. moo tax ne moo tax ne Ngoné parce que Bamba Fall place am du kaso ba Bamba Fall dafay nit ku baax te jël élu jël maire dugal ci kaso bi. defoo ko maire bi ñi ko fal nga ko def parce que dafa mel ni dañoo fal ku ñu warul war a fal dafa mel ni dañoo juum te loolu kenn amul droit teg ko kenn parce que ku nekk da nga am sañ-sañu fal ki la neex bu boobaa nag da ngay jël mboole seem lañ ko fale nga boole ko jëmmam euh, euh, mën ko amal considération kon sa xalaat jaru ko woon ba tey jii tëj dafa jarul woon sax ñu di ko tëj ba muy nekk kaso bay nekk liberté provisoire bay nekk contrôle judiciaire jaru ko woon te it politique bii ñu ko def ak kaso c'est pas possible donc loolu kontaan naa ci kontaan ci Bamba sunu xarit la sunu frère la kontaan ci njabootam euh, yàlla na ko jikk mm, xalifa it euh, yow kam euh, comme farandoom la ñoom it bëgg nañ koo ñu sàkku lu nu mel xalifa dafa warul dugg foofu man bërki démb bi nga xamee ni maire francophone yi ñëw nañu ak ma xam ko considéré ak ma fi ñu ko teg bi nga xamee ni ñun ñu ngi def affaire loi sur la parité ñun maire yi nga xam ne maire yu jigéen lañu maire France moo ni ngir xalifa sàll dana may Sénégal au lieu que président président association des maires rek ak mm. euh, maire capital bi rek dina dinañu may yeneen poste ba may ñu yeneen ñeent mm. nga xam ni juróom-benn moo représenté kii ku am darajaa noonu ñu considéré ko ci biti lan moo tax réewam duñ ko considéré dinañ ci ñëwaat euh, maître euh, Bamba Cissé ñu ngi ci ligne bi maître nuyu naa la maître Bamba Cissé moom kon euh, daal nay génnaat du ñàkk euh, rek euh, xëy na fekk ca kanam tuuti mu dellusiwaat kon nga koy wax ñàkk considération nga ko gisee tey jii la fekk ñu dugal ko moom it. waaw xam nga élu moom dafa am lu ko suñu borom defal parce que suñu borom mooy joxe cër soo xasee ba mbooloo dajaloo ni kii mooy suñu élu ngay wax ci ñoom di jëf ci ñoom. bu doon élu bu bon sax bu doon ni ñooñu dañu juum sax nañu respecté seen décision. mais gars yi ne nañ élu itam n'empêche euh, dafa am euh, lu ko war am lu tegu ci kaw xëy na bu ñu la dénkee. Euh, waaw mais mais mais man toujours damay dendale rek damay wax ne tey bu Mimi Touré gagné woon Dakar te am na lu fi amoon loo xam ni président bi mën na jël décret dindi ko président bu ko neexee jël décret daal ni caisse d'avance dootul am. te ñu yemale ko rek ci loolu même bu nekkee ci loi nee naa leen absoudre ma ko carrément. parce que loolu man ba nga xamee ni ci maire yu ndaw yi nga xam ne amuñu caisse d'avance mais dañoo amoon rubrique dépenses diverses man dama koo dindi parce que yii ñuy def man jiguma man dama koo dindi man donc xajuma ci donc loolu moo tax ma ne même bu fekkee ne dal nañ ci kaw même bu fekkee ne moom la mais contrôle judiciaire bii ñu defal Bamba Fall mënoon na commencé foofu dinañu ci ñëwaat wax ca seen parti ak euh, lu jëm ci mbir yi Pape Samba Mboup ak Farba Senghor ma nga xamante ni nag ñoom euh, daan nañuy jël dogal kon euh, daq leen kii di chef ancien chef de cabinet maître Abdoulaye Wade ni xëy na yëf yi yëngalu ko mais bett na ko quand même loolee la xamle ba tax na ma ngay xaar ñu notifier ko décision bi ñu teewlu ko. xam nga dogal bi yan yéen ma ko yëgal. journaliste yi yéen ma woo di ma ko yëgal biñ ma biñ may woo maa ngi toog fii ak samay xarit mu ngi bëloot di waxtaan di ree yaa ngi dégg bon après am na ay ay militants yu fekkee ak euh, réunion bi wax nañ ma wax nañ ma comment ça s'est passé mais man kenn notifié gu ma ko officiellement léegi euh, il semblerait que góor gi ci boppam moo bind lettre pour que secrétaire national réuni pour ñu pour ñu exclure ñu du parti bon moi bon si, sa ça se confirme parce que jusqu'à présent ba léegi kenn notifié wu ma ko officiellement mais bu confirmé wu man c'est pas mon problème hein j'en ai cure moi ah. ndax nekkul lu la bett cadet de mes soucis d'ailleurs d'ailleurs dama kontaan sax parce que maa ngi duggoon si camion bu dof amul frein. di daw tout droit contre le mur ñu génnee ma ci débarqué ma ci man <laughs> mun ma doon sant suñu borom. ndax dogal bi nga xamante ni bu jógee si maître Abdoulaye Wade nekkul lu la bett yow mii ñu xam ni que. membre fondateur man parce que Abdoulaye Wade fu ma jaar ak moom. léegi hmm, ma ko xamee ba léegi fu ma jaar ak moom war na toog xalaat li ma koy wax fi ma jaar ak Abdoulaye Wade ak lu ma mën ci def Abdoulaye Wade warul egg man fii ndax parti bi li ma ci mën yëpp def naa ko ci jox naa ko suma bakkan jox naa ko lu ne ci parti bi lu ne def naa ko ci lu ne naa ko si parti bi yaakaaroon naa moom ak euh, lu lu ma ko tooñ tooñ tooñ tooñ tooñ moom mag la waroon waroon waru comporté wu nii te affaire bi Ablaye Wade mënoon na ko régler c'est tout suñu problème bi ñu am ak direction parti bi mënoon na ko régler moom parce que bu ñu toogoon ñëw ñu toog wax wax ñu toog wax waxtaan seet ku nekk lu ko naqari ñu laver les salles en famille du ñu egg si fii <laughs> mais moom lu mu def loolu mu mu njabootee ñu moom mu xam taal bi. bu fekkente ni décision bi confirmé wu na. noonu lettre ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir parti bi ce son les adversaires du parti ñun xam nañ ñu la doon waxal waxal nañ ne ñun Macky Sall moo nekk suñu ginnaaw mais dinañ ñëw yaa ngi suñu kanam. dëgg naa ñu ne ñu ngi préparé pour dem APR mais affaire baa ngi suñu kanam nañu xool ndax man ñu ñu dinañ dem fenn. waaw léegi bu fekkente ni ñun benn parti la ñu xam bu ñu ci génnee <laughs> ñu dem uti beneen beneen liggéey. man de du ma attaqué kenn si yoon. Hmm. ah pour lan <laughs> dàq nañu kaay fii dem suñu yoon jeex na wala le problème. lan mooy doon avenir politique Pape Samba Mboup. man avenir suma suma avenir politique daal mu ngi si loxo suñu borom. man man yàlla laa gëm li ma def nii yëpp parce que dama gëm suñu borom man ma nekk si dëgg bi ñoom ñu nekk si fen. merci monsieur le ministre si fen. merci monsieur le ministre fen fen yi. Euh, euh, si les quelque temps rek dina feeñ. ma ngoog Pape Samba Mboup kon euh, waxtaanu mu seq ak Adja Talla euh, ma ngoog honorable député bett na la yow it wala dogal bi bettu la. Euh, waaw xalaatuma woon ni bett na ma kay ndax xalaatuma woon ni ñoom fii ñu toll tembe ñun nga xam ni ñu ngi wut ñu ñu àndal pour jàkkaarloo nguur gi fi nekk nga xam ni ñu ngi dajale sunu parti nga xam ni ñu ngi seeti yeneen parti yoo xam ni ànduñu woon ak ñoom sax bu jëkk ñu mën leen a baal la ñu xeexoon lay Wade ba jëlee ko ci nguur gi baal leen lañ ñu xas bi ñu jógee ci nguur gi ñu ñu nekkoon assemblée nga def nga bañ a def ku la gis mu lay diaboliser ñun ñooy sàcc yi ñun ñoo tilim ñoom ñu mën a jël ñañu ko doon teg raxas leen ba ñu set ànd ak ñoom ngir bëgg lu baax ànd ak ñoom ngir Sénégal ànd ak ñoom ngir bokk benn noonu yaakaar naa ne suñ ko mënee def war nañ ko mën a defal Farba Senghor ak Pape Samba Mboup raxas ci dolli dafa am loo xam ni mu ngi raam te ci ñag bi la jëm te bu fa jëmee dootul génn ci sunu parti moo di képp koo xam ne bëgg nga daraja wala nga liste yaa ngi ñëw nga yaakaar ne bëgg nga dugg ci liste yi wala bëgg nga am benn ki dootoo ko def ci base bi dootoo ko def ci nit ñi nga xam ni ñooy suñu mbubbum gaal nga xam ni moom la ñuy sagoo dootoo ko def ci siyaare dootoo ko def ci njaale ju nit ñi dootoo ko def ci faj nit ñi Pape Samba pour sa pour mu wax la ko en exclusivité tey ci suba ñàkk na koo xam ni militant wu Ablaye Wade la te ancien yëpp ku ci feebar wala dara jot ko am na appartement boo xam da lay teg ci këram di la faj ba ba ma lay yóbbu ci sa njaboot loolu kooku def ko far ba Senghor man la gën a mën a attaqué mais foo ko fekk amul dëkk booy dem ci Sénégal kooku tuddoo parti démocratique sénégalais te sa xel du dem ci Farba Senghor wala nga xam ko muy ay symbole yoo xam ne mënoon nañ ko bañ a attaqué. mais lan a mën a décision bi quand même ngi naan xëy na pour ñoom xalifa ñoom hmm. Bamba jàpp gi jaru ko woon mais est jaroon na muy àgg ba ci. biir jaru ko jaru ko ngóone jaru ko parce que dama lay wax ne la euh, dafa am luy ràmm di dugg suñu parti moo di dañu defoon ni pour nga falu tey wala nga xeej dangaa war a dugg ci euh, wax lu dul dëgg dangaa war a dugg ci yàq der dangaa war a dugg ci saaga. te loolu baaxul loolu baaxul loolu waruñu parce que ñun parti bu mûr la ñu tey aujourd'hui ñun sénégalais yi ñun la ñu yaakaar Ablaye Wade dafa defar ay taaw defar ay doom yu am valeur doom yu liggéey ci Sénégal kon doom yooyu ànd rek booloo moo leen war pour que ànd boobu su dëgëree ñeneen ñee leen ñëw parce que ku ñeewul sa waay. doo ko mais est ci wàll woowu xëy na dafa jàpp ne tam dafa. teg kilifa teg ay waxam ngeen euh, ñu bëgg ko teggi parce que euh, teg na coordonnateur am gars yi attaque yooyu. Euh, indiscipline moom moo jàngal loolu. moo mhm. nu jàngal loo d'accordul def ci maam Cheikh Ibra Fall bi muy jébbalu sëñ Touba daf ko ni woon sama ngor ak sama jom duma la ko jébbalu waaleel xam nga lu tax. Mhm. boo ñàkkee ngor gi fu mu la bàyyi woon dootu la fa fekkaat boo amul jom lu mu la sant doo ko mën a liggéey mhm. ngor ak jom kenn du ko yóbbaale fenn. te moom noonu la ñu ñu ni ko du noonu bi may démissionné 2009 yéen a ngi fi. daf dafa jaaxle dafa jaaxle parce que boobu mu ngi ci digg dooleem te itam ministre bu ñu nommé te amuloo benn contrainte euh, euh, condamné wuñ ma ci mal gouvernance condamné wuñ ma ci ay dossier defuñu dara man maa xool mun ñu recevoir ma ñeenti yoon. bu ma ko proposé ci ministère bi ndax ministère bu bees la woon mu bañ. ma ne ko kon comme que loolu la jëlal sa ministère daal di démissionné donc loolu jàppoon na ni nit du ko defal mais noon la ñu jàngale. te noonu la que boo déggee euh, Pape Samba ni mu waxee euh, bett na ma maa ngi xaar parce que kenn notifié gu ma ko euh, venant ak fi ma jaar ak moom donc xëy na dafay yaakaar ni ñeneen ñoom ñoo jël décision bi wala loolu mën a nekk la wala. waaw loolu moo tax ma ne la mem bu fekkee ni jóge na ci président Wade jaawale nañ Pape Samba mi mu amoon. Mm-hmm. Pape Samba la fidèle. Pape sàmba bi nga xam ne symbole la ci parti bi man damay dama koy invité le plus souvent parce que damay wax ni su nekkee ci sama wet dina dina dinañ ni kii euh, mooy symboliser fidelité ak présence Wade dafa koy fàttali ñëpp donc Pape Samba moomu effectivement mën na ko bett mm-hmm. te itam mën na xelam mën na ñaaw ci ne est-ce que sama waa ji la parce que euh, li mu li mu fi mu jaar ak président moo bare te nguur goo gis mm-hmm. wala parti boo gis cotisation la kii day am pouvoir bi doxale lii kii am dooleem ak ñaqam ak fidélitéem ak loyautéem moom itam côté. xëy na notification bi wala président bu ñëwee euh, ak élection bi ñuy dëgmal man a dindi rek toog euh, tax euh, ci daje nga xamante ni nañ jël dogal ba xëy na boo fa teewoon yi nga fi wax yëpp invoqué ko gars yi dina man mënu ko woon ñoom xam nañ ni le 26 laa doon def anniversaire mouvement bi. Mhm. yónnee naa leen ay carte donc le 27 suñu defee loolu xam nañ ni du ko mën. Ah, yow tamit nga ne ci biir parti bi ñoom ñuy amal seen ndaje nga ne da def anniversaire est-ce que du xeetu kookali wala ndi kookali tamit non non bi may décidé anniversaire bi yéen diffusé ngeen ko ba tàyyi spot fii lañ ko doon tege bi may def anniversaire bi boobu décidé wuñu woon loolu mais parti bi ci boppam moom mooy moom mooy xëy na li war a jiitu ni ñu ko waxee alliance nationale pour la démocratie ndax tiitoo li ñu teg ci gars yi euh, comme dañoo teg rang moom ku xaw a génn ñu am ñu def ak yow ñu ñu teg ko sa kaw. man amul lu may tiit xam nga man sama problème moo di na sama esprit leer ni tooñu ma kenn li nga xam ne daal moom moo ci metti moo di nit kuy def dans la médisance wala la calomnie wala le mensonge comme ni ma ko waxee léegi di taqal deru nit te loolu moom dinañ ko regle parce que fii ku fi taqal deru nit te indiwoo preuve dañ lay yóbbu ci yoon donc loolu rek xëy na moo ci gênant euh, entre frères et sœurs de parti. mais ku ku de sœurs yooyu li la waree tuumaal ci wàllu ay euh, détournement ak yooyu ba xëy na doon proposé ñu dàq la yooyu loolu. Euh, jot ngeen ko réglé kooku tuuma boobu moom. ce justice lañ koy réglé parce que yooyu moom du ngóone ngoom lañ koy wax. da nga ko dafa xaw a koy porter dafa xaw a waaw. mais lu mu leen ko waxtaanee. non c'est-à-dire que bëgguñu ko waxtaanee buñ ko bëggoon waxtaanee daf la naan est-ce que lii am na wala amul. xam nga mais est-ce que loolu du gën a fragiliser tamit parti bi bu ah, ñuy ah. dàq ñii ngeen di yóbbante seen bopp nee naa la dafa am lu ñu war a arrêté dañu war a arrêté di yàq deru nit pour xeej kooku kenn amu ci droit am na ñoo xam ne dañu leen a yare ci ni kenn du yàq seen der man ndey ji ma jur dafa mel ni woon lu dul sa yére bu mu tegu ci sa kaw der te loolu la ñuy sàmm. Mm-hmm. mais ci wàllu woowu alliance nationale pour la euh, démocratie gars yi jàpp nañ ne xëy na tournée beeg yooyu liñ la ci boolewul nga njort ne xëy na doo dugg ci liste yi moo tax nga bëgg a euh, ber ci yoonu sa yoonu bopp pour euh, jot ci siis yi ci assemblée nationale. liste yi moom bu dee liste rek. Mm-hmm. man ay dëngoy dinaa ci bokk. tournée yi nag moom dañoo def tournée boolewuñ ma ci de leen ni mën naa def tournée. Mm-hmm. parce que du yoon. ndax fu ñu demee mais bi nga defee tournée defoo ko ci turu PDS da ko def sa turu bopp. alliance bi aw ma droit def ko ci turu PDS d'ailleurs looloo indi woon bi bi ma wàdd di autoriser mouvement bi Tamba laa jógee militants yi ni ma dañu bëgg di leen gis parce que boobu da wàcc nañu ñëpp ragal mag sàll di ñu persécuté ñu ni xiim ma dem Tambacounda dellu si militants yi yëpp ni dañoo bëgg ngeen di wàcc si ma ko président Wade mën ma demal man ko nu may demee parce que dafa am yoon parti bi. Mhm. booy dem ci turu parti bi foog nga tàggoo. mu ne ma mais demal rek maa la yebal man ko déedéet dama bëgg def sama mouvement boo xam ne heure bu ma jógee dem mu ne ma mouvement du ci gan ndaxte 2007 bi ma bëggee faluwaat dangaa def foog mu raw force convergente mouvement pour la réélection d'Abdoulaye Wade foog mu raw ba ñu defal ko site foog mu raw point com yéen a ngi fi woon. mu ne ma ma ne ko mu ne ma bi ma la delloosee 7 mois laa def ci gouvernement bi mais ba ma yegsee un mois jour bi ma jëkkee def conseil des ministres mooy jour 23 juin. donc xam man yàgguma fa. mais bi ma yegsee gis ni il fallait déjà apaiser le climat politique nit ñaa ngi daje ñu ngi ab Ablaye Wade ma war a redorer blason sama waa ji sama leader ma def ma carte ma caution Ablaye Wade euh, la euh, la caution des femmes. la candidature de Ablaye Wade. yaa ngi koy dégg jamono yi wala. gëj naa koo dégg mais heure bu ma ko soxlaa woo ko te heure bu ma ko wooyee mu jël ma. Mhm. mouvement bi euh, anniversaire bi amal nga ko. Euh, le 26 euh, dimanche bi boo doon def bilan bi ci ci tënk bi ñu ko taxawalee léegi loo ci wax. du wër Sénégal Sénégal bëgg mouvement bi parce que. mouvement bi dañ ko jëloon parce que comme ni ma la ko waxee jamono yi ñu koy taxawal dafa nekk loo xam ni sénégalais yi dañ ko soxla woon ndax sénégalais yi mhm. de le 25 bi mu amee rek li tax du ñu féete le 25 vingt 26 la ñuy féete mooy loolu mooy réccu bi ñun amuñu droit féete vingt cinq parce que le 25 la ñu daaneel mais le 26 nag mooy réccu bi sénégalais yi dañu toog rek ñu commencé di persécuter nit ñi di agresser nit ñi di tuumaalante ñu daal di ñu daal le 26 rek réccu jot. ñu daal di def suñu mouvement le 26 mars 2014 ci ndigalu nag président Wade ñaanal ñu yàlla yàlla def. ñu ko defee. ñu ñu ñu ñu ni adhésion yi bari na mouvement bi nit ñi bëgg ko te dafa nekk beneen nouvelle offre politique defatuñu pour tàccu rek de. ak di dugg ci yaa ngi campagne de dañuy dañuy dañuy dimbale nit ñi def benn cadre développement mm-hmm. social boo xam ni ñu ngi aller vers la formation des jeunes l'encadrement des jeunes l'autonomisation des femmes ba pare ak des soutiens. au plan social. mais très rapidement pour terminer euh, yi nga xamante ni ñu ngi ci jëm bu ma dellusee sa biir parti coow li xeetu dàq yooyu du mën nañu wax ni du fi guléet amoon na fi bari na temps yi euh, ñu mer euh, yow mi nga xamante ni yaa ngi sa kuréel ñii ñu génnee ñeneen coow li bari na torop ci biir parti bi est-ce que lii du ko du ko faf jekkali quand même. jiguñu de coow li de moom jiguñu te itam baaxul te itam euh, kuy politique dangaa war a wut argument politique opposé ko ci ku la dóor politique. Ah, lii dafa bokk ci ñàkk argument parce que lii problème mu euh, c'est-à-dire défaillance la boo xam ne. da ngeen koy yombalal jamono yi président Macky Sall. mais bien sûr te nag waru waruñu ko yombalal dara. parce que bu leen ànd bi tëwee rek yombalaluñu dara. moom waruñu ko yombal dara parce que yombalaluñu dara te ñàkk argument politique mooy tax ngay recourir à la prison ñu di ko sikk ba tuddee ko dictateur ñun ñu wërbati ko ne démocratie amul kenn du wax bu ñu waxul du baax il faut que. ku la wax benn argument bis boo demee bay politique ngóone dama lay digal loolu ku la dóor argument dóor ko argument parce que gis nga ñàkk argument politique mhm. dafa dem ba nekk danger parce que mën na indi sax violence ñiy gaaw a xeex ci politique du ñu débat gërëm la bu baax Aïda Mbodj la ñu doon euh, dalal Aïssatou Mbodj député à l'Assemblée nationale jiite kon groupementaire euh, libér groupe parlementaire libéraux yi jiite it alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey soxna si ñu jaajëfal la sa teewaay jërëjëf Ngoné maa ngi leen di gërëm di